laaj nga ma lu ma neex déjà euh, polygamie consentement mu am polygamie am. Mm-hmm. parce que ki bëggul wujje moom ba tàggalee am mooy déjà moom góor ki décision bi mu jël day takk jabar moo natt xool antan na wala antanul xam nga moo yem boppam loolu. Mm-hmm. moom moo def prise de conscience am xam na mën naa wala mënuma xam wala moo ko si dugal. Mm-hmm. ko jigéen ki nga xamante ni moo fa toog di sëy ñu indi ko wujj moom it mu nangu dékku ko mhm. nangu dékku ko moo tax wujje am parce que dafa accepté toog moromam fekk si ko mhm. moo tax wujje am déjà à la base consentement la tout fait même bu fekkee sa jëkkër yëgalu la ko détail yi la fekk toog nga rek d'accord nga pour que wujje mën a am léegi nag euh, détail bi ci gën a nekk mooy femme mhm. yow ko jigéen ki yow mi nga xamante ni déjà yow la takk pour nga ñëw dafa am comportement ba war a àndaale pour ki ngay fekk si même bu naroon sax am na mu doxalee mu xaw la ñeme mooy nga ñëw déjà andi respect andi dal c'est très important man damay wax ma ne respect mooy base bépp relation quelle que mhm. soit la nature de cette relation mhm. tu donc respect rek dafay xaw a doy mais li ñu gis tey dañ lay takk yow ci sa jouru mariage ngay commencer di frustrer ki nga xamante ni moom nga war a dem wujjeel il faut éviter cela ci réseaux sociaux yi dañuy gis ñoo lay takk sa aawo am respect bu toll ni déplacé wu ñëw ci sa xew ñu koy tendance ci biir xew bi te loolu yow war nga ko mën a bañ parce que af euh, sa nawle liñ naan nawle dafa foor mhm. gis nga nit bul nangu mu gën la nitee mhm. surtout jigéen bépp bu ñu jigéen bu ñu takkal wujju mu wax ko mu bañ ko wax neexu ko ku ñoon ki nga bëgg moom rek ngay desal wante nag yàlla moo leen may privilège boobu ñoom góor mhm. ñu war leen ka nangul parce que suñu borom moo moo leen jox privilège boobu loolu ñun mënu ci dara yow en tant que femme lenn nga mën soo da ngay accepter nga joxe sa consentement ngeen wujje soo buggul nga dem parce que du force nga toog nga muñ loo xamante ni bëggoo ko mu muñoo fet dem bi du defet ñu ne da nga daw non du defet xamata du defet ku nekkax li nga antan da ngay gis si kër sax nit koo xamante ni dañ koy def lu ne day muñ du wax day muñ gis koo xamante ni dafa mel ni Rose boo ko coqaasee rek day réagir ku nekk ni nga mel parce que des fois tamit société bi ñu bëgg la imposer loo xamante ni arrangé wu la après dalay indil ay problème jigéen yaa ngi fi di amee goitre jigéen yaa ngi fi di amee dépression parce qu'elles sont pas préparées à ça mm-hmm. y a des femmes yoo xamante ni éternellement mënuñu wujje jéemuñu ko parce que munuñu ko seen caractère la y a des femmes yoo xamante ni mën nañ ko parce que ay muñkat lañu mm-hmm. ay muñkat lañu mm-hmm. léegi nag li am solo mooy li nga wax sànq dama lay rejoindre yow en tant que femme sa devoir soo amee jëkkër def ko parce que la femme doit être soumise dañuy nangu loolu nga am lu la war sa diggante sa jëkkër ci ni nga koy toppatoowee ci ni ngay waxee ak moom kàllaama bi surtout loolu ci ni ngay dalalee xelam waaye it ci biir néegu sëy bi intimité bi et c'est un sujet tabou fii Sénégal c'est domage man je suis malienne ñun dañuy dañuy jàngal néegu sëy gis nga bu ñu la takkee da ngay toog semaine ñu indi mag boo xamante ni amul kersa. Mm-hmm. dalay wax nooy sëy ak sa jëkkër mm-hmm. noo koy béggalee soo yëgul sa bopp nanga nga war def ba yëg sa bopp mhm. sa jëkkër bu yëgul boppam mu lay expliquer kii yëgul boppam mhm. pourquoi pas ñuy def loolu mhm. ak les jeunes parce que gis na góor mu ngi takki euh, jabar parce que amul satisfaction ci lii wala ci laa fekk jabar bi bañul de mais xamul dëgg la te yaayam du ci waxtaan ak moom ah. est-ce que tu vois. entourage aussi des fois duñ ci waxtaan ak moom. c'est des sujets tabous waaye loolu moo amatul femme. te mi ngi am ba tey loolu te mu nga dégg alxëyri mel na màggat moo xam ne yàgg a joow la jaar na fu nekk tëj la cib nekk ne la nii ngay def ak sa borom kër bul ñëw rek def nii de nangam ak nangam soo defee nangam nangam të nga jaar moom ci barab sàngam defal ko ba di ko defal nangam waaw su dee lël la lël mhm. góor ñi nu xalfal leen ba nga xam ne ñu ngi ci àll bi di kii mhm. doom lay won ne nii ngay def mhm. jant buñ la kiiwee suñ la boo rek sa soxna nangam ngay def mhm. bul ñëw rek def nangam de da ngay def nangam di ko jaar ci nangam di def nangam dëgg la yooyu moo amatul loolu la lay wax am na solo dëgg la dëgg la fii di rek lañ lay wax lu am solo la parce que da ngay gis ni ka tey xale yi boo duggee ci réseaux sociaux yi xale yi ñu ngi jaay fem bu nekk mm. pour bégal góor yi xoolal jouet yi ñiy jaay xoolal gants yi ñuy jaay. <laughs> xoolal lubrifiant yi ñuy jaay. du foofu léegi nag soo nekkee même soo nekkee mag dangay jàng xam nga dangay jàng. Mm-hmm. mooy sànq li nga wax. góor dangay def lépp ba nga xamante ni. boo ko mënul retenir aussi su demee. Mm-hmm. du gis lu ko jaaxal. Mm-hmm. loo ko wan mu ne moom sama ndaw si def na ko si xelam. da lay sagal nag ak ñoo mën sagal seen jabar yu bees yi. loo def ñu naan rey nga ma fekk kee yàgg na la démonté. comprendre nga xam nga lu bon. ko mooy féministe gi xam nga lu xam nga lu bon xam nga lu bon père. Mhm. yow dóoroo faywoo attewoo xeex. sa jëkkër xëy takk jabar ñu koy jommal ci biti mu naan lii ñaata at de mariage mosuma ko dund loolu mooy defetu jigéen waaye ñu takkal la wujju mhm. du defet mhm. danga war a def sa part ba pare nga bàyyi ko moom mu dem wëri dafay toll foo xamante ni moom day bëgg curiosité da koy rey nga bàyyi ko mu wër asaama góor takk na ñeenti jabar mais aawo boolewu ko kenn parce que la mu dund ak moom fa mu jaar ak moom xale yi ñëw ñu def lu aam deful léeg-léeg nga gis góor gu dem raay dootul dellu si ndax ñamal nan ko boobu dafa ñamal loo xam ne mhm. yow munoo woon loolu mhm. wala mosoo koo kii waaw mu yuuxu lan daal di lan waaw loolu tamit day am góor di nga jël nuisette bu trente cinq mille di ko bégalee chaque jour mu ñëw trompé la wala mu takkal la koo xamante ni sous-vêtement am jarul 500. dëgg la mais Rose bu dee da nga jënd nga baal ma bu dee da nga jënd nuisette 30 000 ñëw taxaw mel ni gàddu rouge amul njëriñ. ki def sous-vêtement wu ñëw di def yëfu jaan di def yëfu Shakira kooku moo leen. dégg nga ko kooku moo leen mën waaw moo leen mën mais li nga li ma doon wax kuy saaga. mais père. dégg nga sànjaay gi ma doon wax. père li mu wax. sànjaay gi dégg nga ko. yàdd yàlla seulement moom ngay am. chaque boo xam ne su nga toj ci sa néeg. nga toj waaw mais ah. jadd jaddaaral boobu jigéen def si nekkam des fois du photo mooy li ma wax à la base. on nous apprend pas la sexualité. te sexualité sujet tabou lañ ko def mais warul nekk sujet tabou parce que sexualité mooy base su. Mhm. sëy dañ koy faral di tooñee des fois naan ceeb ak ndox am na sama kër papa dafa bokk ci sëy et jigéen bi boo ko jàngalu des fois du xam su xamul fu muy dem laajte moom day def li ko xelam may rek mais bu toogee ak ku ko ëpp expérience ku ko jàngal comme ni ma la wax nga jël une semaine toog ak mag wala nga am ay cour yooyu suivre mais cour ak pas pas ak n'importe qui ah. surtout loolu cours ci ki ngay dem na nekk mag boo xamante ni daal sëy ay at <laughs> musul fay. waaw ku jëkkëram gërëm ko ci mbooloo. waaw mm-hmm. nga gis mu nekk ci kër gu mag daj lu ne. waaw mu leneen lii su doon man du ma ko nangu daj. Mm-hmm. kooku waaw ñeme naa la pour dem mm-hmm. laaj la conseil. ak ah, kan ngay laaj conseil. parce que nag kay ma la doom dina nekk ndeyam sax mu xam ne sama yaay mi ni mi sëyee des na. billaay wallaay. Ah, dëgg la dëgg dëgg mais déjà. pour pour pour base bi rek. Mhm. nañ ñu jàngal nan la ñuy sëyee. foofu mooy base bi. dëgg la. Mhm. loolu leer na euh, balaa may ñëw ci oustaz ndax li ci diine wax dama bëgg ñëpp joxe seen avis oncle Pros ci yow laay ñëw ñoom ñaar ñëpp dafa lu am solo lu ñu wax. mooy mooy jàng sëy. sexuellement nan la ak naka la. mooy góor mën nga ko jommalee fii mm-hmm. mën nga ko def nii mm-hmm. père wax na ko sànq mm-hmm. góor mën nga def lépp ci moom waaye teewul dana génn dem donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous pousse vous les hommes à vouloir épouser une seconde ba yegg ci trois ak quatrième femme malgré toppatoo bi ak mën sëy bi ak yëpp ñu teg ko ci yoon bu leen poussé waaw ah, yaa meilleur waaye li mooy question. <laughs> Prospère tontu merci beaucoup très bonne question. <laughs> leen xii. rayon naa la téye ñaari fa dama dégg sànq euh, Soxna Rose. waaw ngi ñëw. di wax ne la sexualité avant mariage dafa nekk lu tabu maanaam euh, duñ ci duma yëpp jigéen ñi. Hmm. bala ñuy dugg seen néegu sëy. mag ñi ñoo yey. xale yi xale yi xaaratuñ ku leen yëpp. mokkal nañ baar. dañuy mokkal balaa ñu leen di may loolu tax ma ngi tàyyi wax ni njaan toog di la yeb bala ngay dugg mhm. mooy ki ne tekk loo xam ne xamul bu ñu boxam xamul bu ñu bojj xamul bu ñu tey waaye boo raatale raatale raatale raatale balaa ñu lay maye lu la ma ngi waxati doom moo tax toog sa lupp ndey ba yàpp la jot ñu yàpp la mhm. digal la defal nii tegal fi sa tànk bàyyi lii rose euh, soxna rose loolu tax mag ñi tàyyi ci wax ji ndax xale yi seen bopp ñoo koy asaaloo asa boom bi avant ñuy dugg ci néegu sëy loolu aussi mooy dëgg ndax waxtaan dëgg ci la mais li ma bëgg a wax mooy. Mhm. da nga laajtee sànq euh, mhm. comme ni ko définir ah. oui moo di góor bu am soxna yu bëri.